wàtte ki yëngu leen ma ni wàtte ki yëngu leen non tey ma wéy sunu waa ji sunu président Mamadou Lamine Diallo. Mes chers compatriotes la ma bëgg a wax tey fii Thiès rek laa ko mën a waxe ndaxte fii la cheminot fekk baax. maa ngi nuyu toutes les familles de cheminots fii ci Thiès di wax ne fii Thiès c'est le creuset de l'Afrique de l'Ouest ci biir loolu nag laa bëggoon wax ne Thiès Thiès dafa waroon nekk un très grand centre industriel gaa ñi yàq ko xale yi léegi ñu ci ay Jakarta ñun am nañu projet am nañu prototype dinañ leen ko wan pour defar Jakarta fii ci Sénégal duñ ko jëlee Chine wala Italie fii nañ koy defar ci ay usines xale ji ci liggéey. dama bëgg wax ni ñun bokk na ci suñuy projet ak suñuy programme ñu andi fii fii ci Sénégal le droit du sol c'est pas parce que les Français bëgguñu ko ñun nañ ko war a jël tey ko suñu loxo parce que lu ma leen di wax mooy Sénégal à la tête de l'Afrique de l'Ouest moom mooy suba incha allah diriger le monde à la fin du siècle. asalaamualeykum sama mbokki ndaan maa ngi leen di nuyu di leen ziar. maa ngi jaale waa Njeeñeen seen xalif bu wàcc liggéey maa ngi nuyu seen si yëpp mënumaa dugg Kébémer te sama xel du dem ci Mamadou Lamine Thiam xam ngeen ko PDS la nekk mooy député maire bu Kébémer ah yàlla def ne ah tey maak moom ñoo bokk groupe parlementaire di liggéey muy sama xarit gi sama wëlëre waa nag sëriñ Baye Serigne Baye est-ce que Sénégal fu mu toll soxlawul ñaari Mamadou Lamine ñu ko yore nag 19 candidats yëpp yu ci am nañu waxante dëgg nag Sénégal dafa soxla kilifa bu bëgg a mën yore gaa ñi nag nee naa leen dañoo bëgg nekk ay daaw demba dañoo bëgg nekk buur di bummi nee naa leen dañoo war a xoolaat président de la république na mu toogee que président bi ci boppam war na man a fu na ne nekkee benn mën nga faa yóbbu comme ça mu xam liggéeyam mais nee na ñoo lank loolu du am comme Amadou Ba def nu ko neex ak Macky Sall pendant douze ans yeewu suba ah naan sombeem jël ascenseur am ne léegi dafa bëgg a diriger Sénégal loolu du fi am